professeur Hibambari Camara ñu ngi lay nuyu di la dalal. mais ngay professeur de droit pénal tey ñu bëggoon a waxtaan ak yow ci li nga xam ne moom la ñuy laam-laamee jamono ji ñu ne njiitu réew mi fas yéene na saisir assemblée nationale ngir nag ñu daal di am ay coppite yu ñu def ci euh, loi bi nga xam ne jëm na ci état d'urgence ak état de siège tey ji loi numéro 69 29 bu 1969 euh, justement lan lay wundu waaw loi boobu Euh, dafay ñëw dafa permetre euh, su fekkee ni Sénégal dafa nekk si yenn situation yi. en fait mu permettre assemblée nationale. ci bi ko ko ginnaaw bi ko ko président bi demandé. Mhm. mu ñëw transféré ko li nga xam ne lii moom mooy ay sañ-sañam. Mhm. li nga xam ne lii moom mooy euh, sañ-sañu assemblée nationale. ci li nga xam ne moom mooy comment dire organiser wala. ñëw préserver liberté ak droit wu nga xam moom mooy citoyen yi. Mhm. donc euh, loolu nga xam ne moom mu doon liggéey assemblée bi mu ñëw transféré ko président loo xam ne lii waroon na ko saytu léegi du dootoo ko dootu ko mën a saytu. Mhm. dootu ko mën a organiser léegi président si boppam moom mooy en fait euh, moom mooy am pouvoir bi nga xam bi euh, moom mooy def li nga xam ne lii. moom la assemblée nationale waroon def mooy ci cadre li nga xam ne mooy cadre donc Covid bi. Mhm. tey jii buñ ko doon def ban anam la ñuy jaar ndax dañuy si dem amal benn projet de loi woo te assemblée ñu amal session voté nan lay demee ci wàllu. procédure mais noonu lay demee noonu lay demee comme rek euh, loi comme ni ñuy voté loi xam nga mhm. fu loi pour mu nekk loi. da mën na nekk proposition loo donc de loi su fekkee ni texte bi waa député ko euh, ñoom ñoo ko proposé. Mm-hmm. mais généralement au Sénégal kii euh, euh, c'est le président ah moom mooy ñëw di donc di proposer. Mm-hmm. nu mu tëddee donc loi yi moo tax ñu projet de loi. Euh, président moom mooy ñëw ci assemblée nationale. Mm -hmm. par un projet de loi pour que ñu voté ko. donc loolu loolu mu ko doon defee. Mm-hmm. noonu la koy defee c'est la même procédure. donc c'est-à-dire que day bind texte bi ñëw envoyé ko assemblée nationale assemblée nationale statué ñëw xool suñ koy euh, suñ koy voté. Mhm. ñu voté ko suñ ko dul voté ñu ñu rejeté ko. nii donc ni affaire yi demee rek pour vote loi noonu lay demee saa su professeur mu am ñaari euh, mots yi nga xam ne dégg nañ ko muy état d'urgence euh, bi nga xam ne bu yàggul la fi amoon ak état de siège tey jii lan mooy différence bi. waaw état de siège nag moom puisque ñun état d'urgence ah mhm. Mhm. moo di que ni ñëw dañu interdire nit ñi ñu nekk di circuler ay des heures euh, président moo koy décider ak fait le pouvoir exécutif quoi de manière générale mhm. mais état de siège suñ koy comparer que euh, état d'urgence état de siège moo gën a graw mille fois état de état état de siège dafa nekkoon rek euh, benn mesure yoo dañ koy jël comme su fekkoon ni Sénégal dafa euh, euh, nu mu tiit yi dafa nekk ci ay difficultés yoo xam ni mhm. yi Sénégal sax mën na si mën na si disparaître mhm. donc c'est-à-dire que mooy genre insurrection affaire affaire ay ay ay coup d'état mhm. affaire yi noonu affaire gras yooyu nga xam ni suñu institution yi moom la ñu en fait moom moo nekk en danger ndax Sénégal tey mës na fi am musique bu garaaw la. Mhm, ndax Sénégal euh, tey mës nañoo euh, dund lii di état de siège. déedéet déedéet eh, déedéet kooku moom ñaanuma yàlla sax Sénégal xam loolu. Mhm. parce que dama lay wax ne la kooku généralement xoola ku tourné sax dañ lay xoola euh, pour dire que combien en fait c'est grave ñi nga xam ne ñoom ñooy militaire yi nga xam ne ñoom ñoo war a respect ñoom ñoo ko ñoom ñoo veree ñoom ñoo war a veiller au respect. Mhm. ku ñu gis sax mën a rey. te loolu du dikkee fenn état de siège yàlla ñu ci yàlla musal. bugguma sénégal yi xam bugguma xam eh, sax sama yeneen mbokk yi nekk si yeneen dëkk sax xam ni naa état de siège tellement dafa garaaw loo xam ne lii dangay mel ni yow léegi xoola euh, esclave ngay nekk en tant que citoyen dootoo am quasiment benn droit lépp yoon yëpp xam nga moo ko moom ki nga xam ne kii moom moo koy dawal moom mooy pouvoir exécutif ak ak euh, armée bi dëgg la dëgg la mbas mi euh, c'est vrai que catastrophe la mais est-ce que tey war nañ mën a egg foofu déedéet ah non non non non dinañ ko sori sax nag yàlla xam na ko. Hmm. non non non c' que buñ ko sax comparé xa xañul sax bay bokk. seulement nag euh, pour faire face euh, ak kii bi nii nu mu tiiti më euh, nu mu tiiti Covid 19 bi. Hmm. c' est vrai que il faut ñu jël ay yenn mesures. et pouvoir exécutif bi nga xam ni moom moo war a diligenté ay mesures il faut que qu'on lui donne également les moyens pour pour mu def ko mais nag ah. Hmm. ay mesures yoo xam ni la dañ koy jox moyen pour effectivement mu piloter li nga xam ne lii moom la war a def. pour lutter contre Covid bi mais foofu la yem. Mhm. mais su demee ba Covid jeex day war euh, war a rendre li nga xam ne lii moom mooy comité euh, bi euh, moom mooy pouvoir yi xam ni moom lañ ko jox. Mhm. waaw mhm. loolu moom il faut le savoir c'est que là ce sont des mesures exceptionnelles ah ces mesures xam ne yii dina dina ko daal mu def li président bi def liggéeyam comme. comme ni mu kiiyee pour ñu pour génne ñu si euh, ci mbas bi daal. Mm-hmm. professeur li ma jaaxal mooy euh, ci période euh, loi d'habilitation boobu njiitu réew mi moom mooy buur di bu mi donc du am benn contrôle benn organe bu taxaw ci ginnaaw lu mu def rek duñ ko mës a saytu. non contrôle boobu non dinañ ko saytu. Mm. mais contrôle boobu duñ ko def avant muy def wala pendant muy def dañ koy def a posteriori. c'est-à-dire que su defee ba pare. ba pare loolu ma jël mesures yi nga xam ne moom la jël yëpp. loi lu euh, mu teeti waay euh, décision yooyu nga xam ne moom may jël. Mhm. boo xam ne bii loi bee ko waroon jël. Mhm. ah yooyu yëpp si après su paree lañ koy dem saytu ko ci assemblée bi pour xool ndegam loolu est-ce que jaar na yoon wala déet. d'accord bu jaarul yoon. ñu voilà non mais su mais su jaarul yoon su fekkee ne am na loo xam ne des na si dañu koy euh, dañu koy supprimer. Mhm. Mm-hmm. ñu euh, tamit euh, assemblée nationale kon mën nañoo ne euh, donc jamono jooju tamit Sénégal amul assemblée. amul assemblée mais nag mais nag soxna si. dégg mm-hmm. xam nga suñ ko jàppee noonu sax day xaw kii mais assemblée nationale. Mm-hmm. dafa war a nekk assemblée parce que rôle am du rek jouer ci affaire Covid bi am na yeneen activités yoo xam ni war na ko mën a def. dëgg la dafa war a mën a ñëw di kii affaire moom mën na jox boppam ay pouvoir. ñëw quoi que am na am na droit wu convoquer ay ministre pour déglu leen par rapport pour mën a effectivement veiller à à fait euh, comment dire ci déroulement programme bi nga xam bi moom la ñu déroulé pour lutter contre la Covid 19. Mhm. donc assemblée nationale député yi waruñu nekk yaakaar ni dootuñu liggéey dañuy dem toog di nelaw déedéet tey jii la seen liggéey wala gën a xarañ ñëw toog au moins euh, le pouvoir exécutif président ak gouvernement bi xam ni du ñoom rek doxal te du waruñu dawal li nga xam moom la neex. il faut que tamit en fait euh, une fois n'est pas coutume il faut que ñu jouer seen rôle ñëw toog di réunir comme il se doit pour ñëw ne serait-ce que euh, sur euh, su fekkee ni soxla nañu déglu kenn ci gouvernement bi. Mhm. wala kenn koo xam ne dafay participer bi ñu woo ko déglu ko mu rendre les comptes parce que y a toujours donc la possibilité donc instituer donc ay commission pour euh, saytu yenn yenn mbir yi. Mhm. mu am benn débat bu fi nekk jamono ji troisième euh, mandat gars yi daal euh, wax ji bëri lool te ñi nga xam ne ñooy spécialiste de droit yi sax mën naa ne ñoo ñuy réeral nu mu fa demee noonu. waaw c'est que xam nga xam nga ñu bëri rek dëgg day yaakaar di droit moom donc moom day affaire doy na parce que au lieu mu leeral daf leen di gën a lëndëmal. Mhm. waaye na kooku il faut nga comprendre que ni. droit moo demee noonu. Hmm. droit ce n'est pas une science exact mais mais par rapport ak li nga xam ne lii moom ngay wax nii. Hmm. ah ak hmm. troisième mandat bi. c'est que gis nga soxlawul sax ñuy def appel ñi nga xam ne ñoo naan ay professeur agrégé ay super professeur honoraire ak affaire yooyu gis la question ce n'est pas compliqué au point ñuy def appel si ñooñu. affaire bi lu yomb yomb la. gis nga nit ku mën a lire français. su ko liiree dina gis ni en réalité waruñu boole loo xam ne lii bokkul parce que dañuy wax naan durée mandat ak mandat durée mandat ak mandat bokkuñu. Mm-hmm. mais donc euh, lu ma tëdd alinéa bi nga xam bi moom mooy constitution fi muy limité nombre de mandats yi à deux. Mm-hmm. Ah, donc foofu noonu mandat la wax. waxul mandat de cinq ans waxul mandat de sept ans waxul mandat de dix huit ans waxul mandat de vingt ans. Mm-hmm. dafa ne mandat te président tey jii soo ko laajee na ko président avec tout les respect dû à votre rang vous avez déjà effectué combien de mandats en tant que président de la la République il vous dira j'en ai fait deux te deux yooyu dafay correspondre ak li nga xam ne moom la constitution bi wax donc mënul def euh, en fait euh, un troisième mandat parce que euh, la constitution dit que on ne peut pas nul ne peut faire deux mandats consécutifs donc def na deux mandats mënul am troisième te buy fi dugg naan mandat wu cinq ans la ñu wax ak mandat wu sept kooku il ne faut pas distinguer là où la loi n'a pas distingué. kon débat boobu donc du tënkuwul ci euh, yoon daal. non mais c'est ça le problème man looloo ma jaaxal jékki-jékki rek affaire bi mel ni lu ma mel ni tulleeg mais tulleeg màlle ku nekk di wax yoo xam ne lii au ñëpp xam nañ ni affaire bi di leer na. affaire bi dafa leer man c'est que dama xamul débat bi lan moo ko suscité ci loo xam ne leer na ku si nekk di di si yey bi te en fait euh, wax ji nekkul benn man loolu ma jaaxal moo tax ma ni man fii euh, wax ji kon finalement lan moo si làqatu parce que débat bi warul woon ñëw posé wu bi ñuy def euh, kii constitution bi ñu ko doon réformer mhm. mais le président a été très clair parce que xam nga président dafa njëkkee ñëw ñëw ne dañuy limiter mandat dañuy limiter durée durée mu ne woon man du ma def mandat sept ans cinq ans lay def mu dem assemblée ci euh, constitution ne ko kooku moom munoo ko laal bu ko laal bu ko jege parce que kooku c'est hors à portée bu ne d'accord looloo tax mu ne donc damay def sept ans mais damay sept ans mais donc léegi kooku mooy durée wu mandat ba woon mais léegi on parle de mandat de n'importe quel type de mandat dès lors que ce n'est pas une nouvelle constitution la constitution dañ ko rek réviser moo nekk ni constitution bi nga xam ne moom moom la ñu amoon mm-hmm. moom mooy continuer di daw ba tey donc léegi bu ñu war a confondre durée mandat ak euh, euh, ak kii nu mu tudd ak mandat comme li ma wax léegi rek def na ñaar de grâce moom sax reconnaître na ko ah à plusieurs occasions que ni man def naa en fait euh, sama dernier mandat moo nekk nii. gëj na ko wax nag professeur gëj na ko wax. gëj na ko wax nag gëj na ko wax. géej na ko wax bàyyi waaye wax na ko bind na ko. et puis wax la. Mm-hmm. kaay wax la soo bëggee dégg dëgg. loo mm-hmm. soxlawul sax ñu naan président. loo si xalaat loo si xalaatul parce que le président mooy kan mooy en fait euh, le chef de toutes les institutions ah moom moom mooy moom mooy am pouvoir mooy incarner la souveraineté nationale mais donc moom ah moom mooy le premier euh, comment dire à défendre la constitution vous n'allez pas me dire que le président ah tel que je le connais dina ñëw xoola di subir influence ñenn yi ba ñëw taxaw ne moom mooy njëkk a violer constitution bi te xam na ni moom moo war a défendre constitution bi te je suis sûr que en fait suñ si tolloo il va dire que donc man je me conformerai à ce que la constitution a dit et jamais au grand jamais donc du ñëw postuler troisième mandat en fait euh, constitutif hmm. ça y va ça. d'accord euh, kon euh, lecture Mimi Touré ci euh, ci droit la la tegu. du politique mais loolu non c'est que da nga gis kay ma la si. Hmm. xam nga gis la xëy na dafa am ñoo xam ni dañu am intérêt à ce que Macky nekk fi ba tey en fait le président Macky Sall dafa am ñoo xam ni dañu am intérêt boobu. Hmm. mais ñoom ñëpp suñu tëddee seen lal waxtaan ak seen xool seen mu seen jegenaay xam nañ ni loolu manul ne. te nag Sénégal dafa war a ñëpp dañ ko war a jiital nit kenn warul jiital say intérêt par rapport ak euh, intérêt Sénégal ba ñëw di wax loo xam ni lii en fait méngoowul ak suñu constitution. constitution bi li mu wax dafa leer nañ du débat du dara. professeur Iba Barry Camara merci de droit pénal nga doonoon suñu ganu ñu lay jaajëfal bu baax a baax.